علمه سيد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتضلى وكان خاب نفاه إلى أبي معوفة اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وطهر على هذا النبي الكريم ذي المهجر العظيمه فارج الغم كاتب الغم صادق يوم القيامة سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وسقينا وبصيرنا وسراجنا وقرة عيننا إلى بنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى جميع إخواننا أنبياء المرسلين وأصحابه وأولى الوقت أجمعين ورضي الله عن سيفي وقدوتي وممدنا القطب رباجي العارف صندالي تاج العارفين قطب الأحساب غوض العالم جامع كان فان جامع صاحب تصرفات وتقنيات وتصرفات بحر البذور بحر النور سيدي وأمتي شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وعلى جميع إخواني وأخواتي من الاولياء ترى ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة رجال الله وبركته أن لا تجعل هذا اللقاء لقاءنا وأن لا تجمع هذا الاجتماع آخر اجتماعنا وأن ترفض فيها بنت الأمور وصحة البلد وحسن الخاتمة ما أسرع دارين وبعد فيا أيها الإخوة في الله يا أيها الحاكم والحاضرات وزملائي في دين وزملائي في دين نحييكم تحية إسلامية مباركة تحية التي رسول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لقائنا وإلى اجتماعنا وهي السلام عليكم وأحلى وسهلا ومرحبا بكم yéen mbokk julli góor fi teew yéen mbokk julli jigéen yéen bàyyi yi teew yi fi teew yéen yaay bàyyi yi fi teew yéen rakk yi yéen doom yi am di jàng kàddu bi nga xam ne moom la nekk di sànq te mooy baatu laa ilaha illallah mooy kàddu bi nga xam sànq bi Cheikh bi wàcc ko léegi moom la ko doon gunge xool yëpp pare na xool yëpp pàcc pàcc nañu xool yëpp rëng-rëng na yoo xam ne la marja wala marja laa ilayhi jubluwaay amul pour borom subhanahu wa def waaye amul lu bon subhanahu wa taala weer waaye amul lu bon subhanahu wa taala sukkale ay amul lu bon subhanahu wa taala هو أول في هذه الآية وهو آخر في هذه الحياة وهو ظاهر ما فاقه شيء وهو ما دون شيء كل شيء هالك إلى وجهه كل ما لا فارق kon muy ndokkeel borom boobu di ko sant di ko gërëm di ko delloo njukkal di ko bàkk di ko kañ ci tur bi nga xam ne moo ko dàqal képp ku si oo mooy mooy laa ilaaha illallah te mooy laa ilaaha illallah di sukk ci kanamam wan ko suñu teele wan ko suñu mën a gi mu ñu defar bu dara lu moom ñu xëccal suñu bopp benn yiw bu dul moom ak na sama di julli ci jëmm ji nga xam ne asamaan su tiim ki mel ni ma du am wax ci abadan te ma xayma xar bi jaajëf su fekkee ku mel ni moom du amati abadan jëmm ji nga xam ne dem na ba wax ne keroog ma feeñee su ma waajur kenn gisul ma yaram jëm sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam bu may téer fekk mu ngi ñu koy sol bu mu seet rek solal ko mbubu solal ko tubi sallallahu alayhi wa sallam teñe bopp bi defal ko tusngal daal door nit nekk ko sallallahu alayhi wa sallam diw ko diw yi nga nekk ci jub soo tëjee kawam papa bu la gën ci baax ma sallallahu alayhi wa sallam donc daaw la dafay yóbbu subhaana rabbil subhaana rabbil aala ñetti weer mu daal di am sallallahu alayhi wa sallam juróom benn weer mu daal di dox bu mu am ñaari at ñett boo xamante ne mu am sallallahu alayhi wa sallam te ci la ay kenn xam sallallahu alayhi wa sallam botam kemtaan la gémmiñam kemtaan la bakkanam kemtaan la déenam kemtaan la loxo bi tànk sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nu mu doon gisee kanam nu mu doon gisee gannaaw sallallahu alayhi wa sallam suñu gasoon dinañ gën a allah su doon jur suñu allah akbar dana bi dafa baax ngir ragal borom ndax mu ma baaxee ci kaw ci kaw safara dina ma woon ne sallallahu alayhi wa sallam waxal bi ak ñu tan sallallahu alayhi wa sallam kee ko gaswa di tabu keroog sahaba yi jàpp nañu tiit nañu te ndox dana tàgg benn kër rek ma amoon la sallallahu alayhi wa sallam daal di loxo di wax biir kër yi Nobody can look at it. There are, yeah, Sabasa. William now. Nagano, Takam said, Kendala Salasa. Salasa, put on job. Take out Susi. Susi, 400 of the day, the way. So, no, I never. Salasa.

naa leen ko joxe. waaw seen mbir mi nee na ñu ngi ñuy ñëpp képp ku teew muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw. am nit rafet na seen ndigal ak suñu mag bu muy dund loolu def na laa ko. kóllëre bi jox ngeen ko mu mën na kay jamono loolu def na laa ko kon daa ngeen jeex. jàngal jàpp bu na wasa nu ak yu mag mu ngi bokkal suñu mag ñu ngi jaajëfal jaajëfal suñu mag ñu ko bokkal zaahiran wa baatinan mooy jëmm ci nga xam ne moom la ñu waajur ba joxoon ne lépp la ko ci xam-xam mu ci jëmm ci mu doon jëmm ji nga xam ne moom njëkk a jiitu ci waajur bi doon taawam doon digal waajur dundam yëpp da koo digal waajur wallaahi dundam yëpp wala doon digal benn mu wute waajur mu wute ko wute bu ngeen di wute ndax xamuñu fekkuñu tool alhamdulilah duñ dal wute ko delloo jukkal ñu dal wute ko sànni ko suñu ma joxee micro nag naa wax ci Cheikh Mouhidine naa fi kontaan de ndax lépp ma xaw wax ci moom ma ko xam lu may seede ci moom mooy lu mu seede ci waajuram su ma koy wax laa seede ci moom seede naa waajur bi ci kanam ma kanam mu ne waajur de wilaaya moo am ci sikisa dafa am na ku yàlla woon ci waajur moo tax mu wax loolu man tamit loolu laa seede ci moom man lu ma seede ci moom mooy Cheikh Mouhidine bokk na ci wàllu yàlla yi bokk na ki nga jëlee yow sallallahu alayhi wa sallam lu tax moo ko tamit naa ko wax lu ma ci yàlla woon lépp lu ma wax fii nag dëgg ma tamit naa ko wax si ma toog nii dëgg ma tamit na nekk lu ma wax kon lépp lu ñu wax nañu ko naat nañu ko seet ñu tallal la micro ngay wax ci sa kilifa loo xam ne lu amul loolu musiba la jël wàllu yàlla yéegal ko maqaama yonent yi wala yéegal ko maqaama saxaaba musiba la lu ñu xam ci moom nañ ko wax lu ñu xamut nañu noppi kon jéem li may seede ci moom li nga xam ne moom la seede ci waajur makana yàlla dafa def waajur bi daal wàcc na nii radiyallahu taala anhu ñaar fukki fan ak juróom ñaar boo seet ñeent ci weeru tabax keroog kenn moom dafa wax ne man ma borom su ma defee moom bu ma soxla bu ma soxla yàlla waaye ñaan naa suma borom su may dem su ma dem ña bett ñett yàlla defal na keroog yëngu mu jiite dañoo jaar koo xam ne mosoo dégg feebar beneen kii tam feeñ na keroog jéemam dafa soppeeku woon delloo am doole keroog su ma ko woon tout à ko ji keroog ba mu wàccee soo demee suratul waaqiya borom bi wa taala waa ñi dugg aljana yëpp bu dee màkk dana def dañu sopp bu dee jigéen ñi la mu sopp def dañu fanweeri at bu dee góor la ñeent fukki at keroog jéemus soo gën a ngi dafa dafa wax ne ñeent fukki at la am keroog loolu gis naa ko nii ca baatam bu mujj laa ilaha illa allah wallahi lépp lu ma wax dinaa ko wax dinaa ko mu ne la dara desul bakkan de taxal ko jëm ci ci loolu naa indi doom naa ci jàng baat laa ilaha illa jox ko te ko ñaan rek pour la ko ko dégg ñu génne ko rek ci la la dama yëg Cheikh Mouridine daal ko uutu uutu bu gën ci uutu ñu teew daal di ko taxaw taxaw taaw defar ko ñu ànd ak moom dem jullee ko ci jàkka ji donc seet naa ko seet bu gën si dafa ne seet doy na ci béréb bu ñu ko teral bi daal di jàkka ji ma ko dox ñu daal di ànd déedéet ma lañ ko def mu daal di wàcc ci rawatina baaraam ñaanal ko ñu denc ko mu ñaanal ko jox yaas bi daal di wut waajur keroog wax naa wax nga yëpp mu ne man tamit ñaan leen waajur bi dem naa bàyyi ma ay ji bi tooy xepp mënuñu dara seen bopp gannaaw yàlla maa seen bàyyi day maa seen maa seen bu dee maa seen mu ngi jiin yàlla daal naa maa teg ñaar ba jullit mën mun a taxaw waaye su ma koy taxawalee leexal leen oddu leen naa ko defal. mais yàlla dana indi ndimbalam andi teraangam mu yor ñu lu kenn waajur bu wér bu ñu yoroon wallaahi. mu yor ñu waajur bu yor bu ñu yoroon yor bu rafet. ne waajur bi yor leen yor bu rafet. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, കൂട്ടു denc mu jëm lépp lépp ay bi doon defar ay doom mu wut ñu ñu ko man nag teg ci ma ci boppam teg ci ma ci boppam doy na ci li ma liggéey gannaaw waajur bi jumaa ji o rek waaye ñoo ko léppal jumaa di daw léppal jumaa di daw jumaa ji waaye joo demoon na benn màgget mu daal di oo saa ne jumaa ji laa ko bugg naa daal ñu réparé ko saa ne ko fu mu toll daal jumaa ji ñu ko rek moo fi ne keroog Cheikh mu gën a moom tàttala fekk doole amul am am amul keroog mu ne ma ci borom bi la fanaan keroog di caax ndaxte waajur du ndax nekk maa di la bu mu koy tabax am na ñu ne maa bu yegg ñu ngi taxa ñu ngi fekk tabax bi am na sëriñ yoo xam sama jumaa bi yegg mais dimbal borom bi wallahi woote bu mu tabax ñaar mun naa gën a ci bi loolu rek doy na ak lenn ak lenn kon ñun waa kii bi ñu day moom di ko delloo du ko ndaxte daf ñoo góoram dara si boppam dara waju ngir mbooloo bu ko waju bi bàyyi bu mu naxsaay bu mu niw coono bu nekk du ñu dañ mu di ko ndokkeel du ñu dañ mu di ko gërëm ñu dañ mu di ko ñaanal yàlla li nga xam ne moom la seede waa ji ma gànnaaw ne wilaay waa ji ma am ci sikk sax benn ma dëgg la ñoom ñu ko mun na ma wax yàlla wala ma wàññi mun ko amoon ko wax. mu ne ma damaa tëdd ci biir kiraama ma jóge Saalum toog ca bés ba bu ma demee suba ba am na benn bitik bi ñu wax Ndaar bitik bitik bu Ndaar. jabar Modou Badiane la. bitik baa ngi foofu léeg-léeg soo passé pharmacie bi. nga man mu dem ne man ma dal déglu ci biir bitik bi. ma tegal image mu ne keroog gis naa jëmm ji mu ngi toog taxaw ñu koy wóor ñu ñu war a ñu koy wóoree kaaba gi lan la ko doon wóor ñu ne ma jëmm ji wilaaya bu ko may wilaaya bu ko yàlla may alaka moo gën fop bu ko may yàlla may àdduna seen mud moo mën a gën ma kan man nag bu ma nekkal ci moom mooy seen mudin bokk na ci wàllu yàlla yi bokk na ko jëlee lu tax ma wax ko naa ko wax si biir moo tax sooy Ibrahima ju mu lu mu tuddee bés bii di kaa xam ne xam du mu du hasard jëmoo di ko sasoo rek la fi wax yàlla dafa def benn guddi àjjuma ma am tur yàlla bu ma liggéey ñaari tur yàlla bu ma liggéey bu njëkk bi ñu koy daayiratul ihaata daayiratul ihaata mu ngi bàyyi ko ci Fatiha pour ko abajaane ñaar fukk pour ko abajana ak juróom ñeent juróom ñaar benn benn laa benn abajana mu am Fatiha kenn jël na ñaar fukk ak benn groupe abajala yi ñaar fukk groupe abajala la ak juróom ñett aso ak juróom ñaar ak juróom ñaar vingt huit juróom ñett juróom ñett juróom ñett yi dañ ko ñaar fukk ak juróom ñett dañ ko dañ leen xaaj fukk ak ñeent ñu tuddee ko nuraaniya fukk ak ñeent ñu tuddee ko zalmaaniya lawhul mahfuz moomañ acci laful mahfuz juxaay wala bu feeto ndeeti walan mahfuz yo aci fa nun laa ne fukk ak ñeenti wala camen laful mahfuz yo aci fa nun laa ne fukk ak ñeenti mais Fatiha benn jël na ñaar fukk benn ci furfu abadi mu des juróom-ñaar juróom-ñaar soo demee si suratul ci la juróom-ñaar nekk أو من كان ميتا فأحييناه فأمر وجعلناه جيم أمر صفاتها وجعلناه نورا يمشي سيلو عن صفاته كمن مثله سبع عن صفاته ليس طالبينها قابوا عن صفاتها كما في الظلمات عن ليس بخارج منها كذلك زينا زادوا عن صفاتها aw man kana man fa ina fa amu ci fatiha jim amu ci fatiha sa amu ci fatiha beneen sa bu junni ba amu ci fatiha za bu juróom ñeent amu ci fatiha beneen za bu téeméer ak juróom-ñaar amu ci fatiha groupe boobu yëpp ñu ngi dellu ci Al Imran wa anzalna min ba'di ghaman be wallahu alim bi zaati sudur beneen saar bi mooy suratul Fath Muhammad rasulullah kon fukki xaraf ak ñaar fukki benn bu nekk ci Fatiha sekar boobu laa liggéey woon borom xam-xam dañuy gën ci sekar bu bu yéeme juróom ñaari tur génn na génn na ko ci Fatiha boobu yëkkale ko daa dul ihaada juróom-ñaari tur juróom-ñetti tur asam juróom-ñetti tur génn nañ ko ci daa dul ihaada bu ci biir Fatiha bu njëkk bi ñu teg ko maqamatul azrafil azrail mikail azrail benn bi Aboubacar Umar Ousmane Ali beneen saaba yi moom ak maqama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam

saatu kurbaneegugu liggéey naa ko ci guddi googu ci li ma pour ko am a jaray vingt mille fois yenn tur yooyu yëpp bu nekk ma liggéey ko ñetti téeméer ak fukk ak ñett deux heures du matin ci laa gis suma bopp ci benn nit téere yi wóor والله lépp moo wax d' abord bëgg ma fenn wallaahi téere yi daal di não wóor ma nekk ci dikk téere yi gerte bi nag am na lu yàlla boole ñu ngi ci gën boole bi naa wax seen ko yàlla nag moo def lu ko neex Moussa Oumar Ndiaye moom njëkk aat jii bëgg lu waay te mosoo ko soo ko war a sëriñ wallaahi dinañ toog ci biir léegi ji bi bëgg wàll taal si loxoom ne ma naa ko ñaan ci saase ñoo gisee mu ngi ji mu ngeen dafa bëgg a dugg rek ci biir néeg mu daal dellu garab te loolu dafa am lu mu lu mu ci jublu ci laa ne du ma toog mukk seen mu di fekk ma ci biir bi damay génn ànd ak moom ñëw dugg ci biir ci laa gën a ma fekk mu teew xëy na xel bi waaw. deux heures du matin mu ngi jël mu ngi doon arab bu xonk bu tëj mu ànd ak xëy na xel bi wallaahi. dama gën a def su la xoolee nii nu mu yow weexee noonu la bët bi def. ak keneen ku ma ko ma xaw ma ko ak keneen jëm ku xaw ma ko ci lañ jóg du moo tax ba seen kanam di zikar kanamu laa ilaaha illallaah ñu daagu ndaag mu fara yonent bi neen ko ci saa la ñaari gëlëm daal di ñëw gëlëm yi waxtaan yonent bi weer benn bi kii mu ànd ak weer beneen bi ñu jóg ci rawatina wallaahi muy deux heures du matin ci laa yeew ànd ànduma ak suma sàpp xaal dugguma ci guddi boobu ci guddi boobu laa génn di àdduna ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa anna muhammadan waliyullah wallaahi musaa jëmm ji jéem a la tuuti jëmm musaa fekkoon naa ci yonent jéem a di ma ko doon nangu xool ma xool ko wala su xool dafa doon danga fay def mu ngi jeex xaar yi mbir mi mu yëngaa ci jamono. yàlla nga am ko yàlla fa yàlla. yàlla nga ko yàlla fa yàlla. nga ñëw ay soxnaam yëpp. mooy awa bi asu commencé. ci ñaareel bi awa joxate. ci ñetteel bi Zahra. ci ñeenteel bi asu commencé. ñii man dama leen ñee. ndaxte wurus la yàlla boole jama la yàlla boole woon ndaxte am na wala yàlla nga toog ak ñun rek jigal wala nga toog ak ñoom benn ndokk yàlla jigal su soxna soxna ci di sellal kan. di jubal kan. di war di ma xamal leen ne mu fi lu mu ànd ak bu mu dundee ba léegi mu ànd ak yéen wallaahi nit ki kese mooy dem wala yàlla saa yu nekk mu ngi ànd saa yu nekk mu ngi ànd ak mu ngi ànd ak mu ngi ànd ak taalibe bi wallaahi wallaahi nit ki kese mooy génn ànd ak nit ànd ak wala yàlla du dee lu xewoon Dakar gënal am na ñaar fukki at ak lu mu ngi Abdul Aziz pour ñu yóbbu jéem ko Dakar yóbbu ko Louga mooy Basir bu nekk Louga bàyyam mu ngi Abdul Aziz ñaar fukki at ak ci Abdul Aziz dina Abdou Diop solo ci lañ def suñu ko da nga ko ne dañ ko rox nekk ci boobu moo ko ci ci ci dafa e tabax couverture la war a bàyyam exactement ku bàyyi bi nekk xamatuñu ko ndaxte bu muy wax ci léegi yàgg na ñu daal tabax feneen te loo téye ne tànkam moo féetoo garab bi wala ci la feeñ albaxam ne fu ngeen tabax dégguma ko garab bi mu ngi féet ma wane ko ci la coogal def ko fu mu te lépp dee ko ci maam bi bàyyi mu ngi semoon ci voilà kon ñu ngi ndokkal soxna yi jaajëfal soxna yi ngeen góorgóorlu doon ibaadullah ixwaana ñu war di doon di benn di nuyu di sàkku di gërëm njóobaa njóobaatam yëpp di di sa Ibrahima ak ñu ko leeral. yaa ngi tànn góor yaa ngi tànn jigéen. jigéen la benn la Binatan yon. Chef de la mdiko san soto. Diko gerem. Taka bela mwa nan taka di gana baya. Wudu k o u a kat k a a ake mwanda wudu gana baya. Baya le pulu musumu. Deki na kote kina. Wallahi. Deki na kote kina. am na waxtu yoo xam ne nag depuis ñu ngi dund seen xol dafa daal daanaka xam nañ ne ki leen dara wutu gis nañu jomam ci moom gis nañ te sama alam nag soo waxul dégg nga fekk wallaahi am na bàyyi wax depuis ñuy dund seen xol dafa daal xam nañ ne suñu demee dara du yàq seen kanam daanaka ki leen dara wutu gis nañu jomam ci moom ak taxawaayam wallaahi ba deux heures du matin. naa la tëdd ba dix heures naa la jóg yow jëmul kër jëmul kër xam naa fu mu teg tànkam ko baax mais fii ci baayam ba ba ba ba mu toll nii kon ñi nga xam ne ñoo baayam sigal sigil nañu sigil nañu kontaanoon nañu parce que jëmu ji mu doon na dem jëpp taxaw jëpp taxaw alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin di ndokkeel di gërëm jëmm ji nga xam ne moom la sax moo kii di tuddee béréb bi te mooy Cheikh Abdou Aziz Daal jëmm ji nga xam ne moom la sax mu di tuddee béréb bi te mooy Cheikh Abdou Aziz Daal muy borom maa ci biir man muy borom wilaaya bu mag ci biir wilaaya Cheikh muridin bu jóg woon Cheikh Abdou Khadre Jilaani <coughs> xam nga moom soo dee tër bi nga moom Cheikh ba baax soo demee ci biir Saalam pour Cheikh Abdou Khadre Jilaani mu nga fa oto bu rëy benn benn dafa ne jàkk ci oto nga des xool ci wàllu bët Cheikh Abdou Khadre Jilaani dafa mel ni bët bi daf koy ubbi ko ubbi ba baax te oto kese moo ma ko wax dafa mel ne oto dafa day jubaat moom ubbi mu yaakaar ko dëgg nit moom ma ko nettal wallaahi kon kooku ci la seexal waaw moom ma ko nettale te lépp lu ma wax dinaa ko wax yomal yàlla wallaahi wallaahi kon ñu ngi dokar Cheikh Abdoulaye Sy laa mi nga xam ne mooy borom béréb bi Cheikh mu ngi feeñ fukk ak juróom ci weeru koor fukki fan ak juróom ci weeru koor la feeñ kala sa law si dara bëccëg weeru koor du doon naan déedéet wallaahi yàlla su ko joxee weer du ko naan suñu defee fekk doomu aadama noonu suñu ko joxee weer su ko naan loolu bokk ci ay kéemtaan la ay waajur daal da ko ekkati pour mu dem daal daara da diggante destan dafa sori ay avocat ba agressé ñoo la ci yoon yaakaar daal la ekkati wurus jox ko ko nag maa ngi lay digal benn bu wax lu am maa ngi lay digal bu wax lu am fekk mu doon xale bu ndaw mu jël ko jox ko ay nit ngu ñuy bu ñu dem ñëw bàyyi mu dem daal daal yoon la dafa amoon ay agressé ñu agressé ñu ak seen i juróom fukki nit daan yoon juróom benn fukki nit daan juróom benn fukki nit lii ma Angleterre la a yegg ci agresseurs yi ñu ne ko léegi agresseurs ñoo nekk ci yoon léegi dañuy xaaj ci am nguus nga xaaj ko. lóbbu ko lu ci des nga présenté ko suñu laajee. agressé na ku leen agressé woon léeg-léeg suñu lay laaj ñaata am ngeen am ci xar wala wurus suñu leen lii léeg-léeg ñu xaaj ko xaaj bu jëlee bu ca ñu ñu bàyyi leen ñu ne nag cher ñu ngi egg ci agressé yi léegi li ko agressé wurus dañ koy xaaj xaaj bi nag denc ko benn xaaj bi nga représenté ko. mu ne ko dama def loolu. saa dama ko def su ma su ma yowal dina ma bu mu bu mu wax lu am. ñokowaat ñokowaat kaka mu def xaar bu def ñu mu ànd ñu daan def xaar seen nguur ñii xaar seen alal ñoo bëggoon ci def ñu bu ñu laaj ñu ko moom lépp lu mu am moom def na la ko présenté. agressé nag daañu doon daañu doon fuyee gars yi mais keroog nag dañu leen fuyee ñu fekk kenn ku nekk am na li nga denc ñu laaj cher ko nga def ni mu ne man suma sarala mu ne ma am lu ma wax lu am. bu ma <coughs> waxee agressé la yoonu agressé daal di jaaxal ñun ñaata at ñu ngi yéene yàlla def def agressé di dee di dee doomu aadama jëm bu tuuti bii mu ne du mu ne dina ragal yàlla wax lu mu amul benn fan rek te ñu tuub bay caaxal jëlaat ko jëlee ko ci ki nga xam ne mooy seeku agressé daal di ko wax solo. bu ñu ko rasoola bi ci sensé la affaire certificat la tur ba li ñu nekkee ànd ak moom dontaal de bala moo egg ci daal. moo tax Cheikh bu muy dem ànd ak juróom benn fukki nit ñu doon daal ba fekke fekke yow ci daal mooy sa abdoulaye Aliou Gila. temps bi su ñu yàggoon dañ ko wax lu bëri xam na dañuy gàttal rek ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi ndokkal ñëpp. ñi yàlla borom subhanahu wa taala daal di yàlla ko yàlla suñu feebar bu mujj te liñ ko naan yàlla ko yàlla está yàlla xam jaar ak baati allahumma salli ala